salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet euh, sport au niveau de Malika au niveau de KS Sport TV au niveau di département de Kër Massar ñu ñëw def débrief bi ba tey ak club yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii te Malika. muy lu melni club bi nga xamné le MAF Academy Football Club nga xamné barki dembu le jouer la douzième journée du championnat de division de national 2 mu ci doon dajé ak équipe boobu nga xamné ni moo Racine de Dakar comme ni ñu ko décortiqué woon ci reportage bi Racine de Dakar jouer won 10 matchs 11 matchs am 10 défaites ak benn nul benn nul Bon mu ko amé won ak euh, l'équipe de MAF Academy Football Club lors de la première journée mu ñëw barki dembu dajé ak mom lors de la première journée de la phase retour muy la e journée du championnat de National 2. Mali ko fekk ji ko fële ca Padoa daal di koy gagné sur la marque de 3 buts à xale bu am solo feeñoon ci muy ku mel ni Emma nga xam ni am na ñu bari ñu ñëwoon doon ko seetaan si doon ko superviser si pour xam talent xale boobu nan la mën a mel. mu nekk nag équipe bam te ne mooy le MAF Académie Football Club ci match boobu daal di ci caracolé gën a conforté wu place bi nga xamante ne moom la occupé woon mooy les trois premières places entre euh, Darou Salam Builders ak moom mu conforté si samedi bi euh, mu wara jouer la 13e journée du championnat di recevoir Stade de Thiaroye barki dem nak si semaine bi passé gagné na Stade kub coupe du Sénégal nga xamni feulé lako fekk ci Thiaroye dal di koy gagné sur la fatidique tiro bi Cheikhouna wone ci bopam mu ñew nak tay ji ni mom moy ñew samedi dajeeg fi Malika Malika war ko recevoir mu nek nak un match crucial match bam tane daf ko wara dari gagné à kit ou double dal di koy gagné gëna bu baaxa baax ndax MAF Academy Football Club Euh, ils n'ont pas droit à l'erreur dans cette poule parce que taille Il mon bulldoze 24 points là darussalam 22 points moom ci wàllu boppam moom mu am vingt et un points mu nekk nag euh, taxawaayam jekk na ndax il a la faveur des pronostics devant Thiaroye mais ce sera un match difficile parce que motivation supplémentaire moom la waa Thiaroye am ndax dañoo gagné barki démb leader bi nga xamante ne mooy Daaru Salaam fële ca Thiaroye sur la marque de deux buts à un mu nekkoon match bu am solo le MAF Académie Football Club nag ñu ngi woo supporters yi nga xamante ñoo nekk au niveau du département de Kër au niveau de la la commune d' arrondissement de Malika les Nous ñu ñëw ans les deux équipes au niveau du football malécois, en l'occurrence l'équipe du MAF Academy Football Club et l'AS Malika